ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane di rafetlu bu baax a baax seen àndina ak le buzz web la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu feggoo tey ak suñuy naataango Sénégal Buzz xam-xam ko si médical du DRIC ko waxee aussi eh, xel yi ci moom la nekk lay dem mu taxaw taxawaay bu am solo ci li nga xam mooy médecine traditionnelle bokk si ñi nga xam wax dëgg yàlla indi nañ ci innovation bu am solo eh, docteur Diallo de son moom la Senbuzz ak Sénégal 2021 di am ak jotaay xanaa rek di jéggul ah pour commencer c'est vrai que problème bu technique xaw nañu <laughs> tax nañu xawoon la sonal tuuti euh, monsieur Diallo a baax ci merci Thiongane merci mm. très bien dootuñu la présenter ndax cabinet médical Ndiédry ñëpp xam nañ ko lan nga ñu mën a wax vraiment ci innovation bi nga xamee ni cabinet médical Ndiédry imposé na ko euh, ci li nga xamee ni mooy innover lii di médecine traditionnelle. Pour commencer, mmh. je ne mm. fais de la médecine traditionnelle. Okay. Je fais de la naturopathie. Ok. Euh, xaw nañu nag médecine traditionnelle mais du benn. lan mooy différence bi lan mooy ay garab la. Mm. Hmm. traditionnel baaxu maam yi la. sama maam moo doon def nii moo doon faj lii moo mënoon lii sama bàyyi doon na ko ma ñëw man tam may def yi pour man loolu mooy médecine traditionnelle. amul dosage amul xam-xam amul gestu amul amul technique amul science. amul rien de moderne amul xamuñu sax les organes. d'accord xamuñu luy cœur xamuñu luy foie xamuñu luy rein. Hmm. c'est des gens illettrés qui d'accord waaw. Hmm. dégg garab bi buy buy bii day faj lii wala sidé bi day faj lii. rek euh, ñu jël seen buy ak seen siddeem ñëw Dakar di ko jaay. pour man c'est ça la médecine traditionnelle. d'accord. mais man j'ai fait de la naturopathie. Mhm. lu ma jàng la. Mhm. lu ma mën la lu ma xam la. d'accord. loo xamante ne amul benn effet secondaire la. d'accord jàng dosage. Mhm. waaw xam nag. Euh, ànd ak ànd ak jamono ko très bien alors euh, lu ma la mënul bañ laaj aussi bëgg naa la xam défi bi nga xam ne vraiment lancé nga ko ba mën nañu wax ni macha allah cabinet médical Ndiadiri daanaka da ngeen généraliser lépp loo xam ne nit ki dina koy soxla ci wér gu yaramam lan moo leen may possibilité boobu. Thiongane on n'a même pas encore la possibilité. Mhm. parce que là où le la blesse c'est que l'État ñi <laughs> les mieux renseignés xam nañu que. Ndiadiri, cabinet Ndiadiri fait de très bons résultats. Xam nañ ne aujourd'hui au Sénégal. Hmm. Il y a un boo xam ne day faj hépatite B xam nañ au Sénégal il y a un certain Diallo qui très. Hmm. Euh, ci faju maladie rhumatismale comme euh, nerf comme arthrose comme comme rhumatisme comme polyarthrite rhumatoïde xam nañ ne qu'on fait de très bons résultats ci colopathie ci hémorroïde ci maladie MST ak IST yëpp. Mm. mais ils n'ont jamais fait appel à Diallo. <coughs> d'accord toog ak moom. on m'a même jamais consulté par exemple ci journée euh, mondiale de des tradipraticiens bien que je suis pas un tradipraticien. Mmh. bon on me demande jamais euh, d'où que j'ai pris ça parce que. non seulement c'est une c'est un succès pour tout l'État, mmh. pas pour moi seul, mais c'est l'État qui devrait m'aider moi, moi personnellement et mon cabinet, pour qu'on puisse imposer notre médecine au monde entier. Mais, mais malgré le manque Parce de moyens... Les Chinois mmh. imposent cette médecine, les mmh. Japonais imposent cette médecine, État, ils ont de bons retours, ils sont les meilleurs renseignés. Nous avons jog job taxaw booster li yi xam nañ ne faj aujourd'hui hépatite B par exemple hmm. moo ëpp puits pétrole on peut avoir des milliards dedans quelqu'un qui traite l'hépatite B <laughs> bu doon en Europe ou bien aux États-Unis il est multimilliardaire il, il serait l'homme le plus sollicité et il serait l'homme le plus surveillé aussi mais dañu ñàkkal fayda d'accord bu ñu def concours général kay wala di xool les meilleurs euh, concours dicté wala di xool les meilleurs orthographes ou bien les les meilleurs philosophes alors que c'est juste l'enseignement de Jules Ferry. d'accord pourquoi ne pas valoriser l'enseignement de d'un X sénégalais. d'accord comprendre mhm. et j'ai toujours décrié ça j'ai toujours appelé l'État mais jusque-là nada. d' accord alors malgré tout terewul yaa ngi prouver vraiment di joxe résultat yu am solo ci li nga xam ne mooy maladie yi gën a raar aussi euh, pour médecine moderne bi faj ko euh, lan mooy sa secret malgré manquement yi nga xamee ni xëy na accompagnement yi état yeeg yooyu docteur Diallo amu ko. secret bi ñaar la rek faj damay faral di naan dafa am ndey am bàyyi ndeyu feebar yi ak bàyyi feebar yi ndeyu feebar yi di lépp lu jëm ci biir te baaxoo ñu di raxas suñu biir yi. te bu ñu demee aussi ci médecine moderne boo nee bëgg raxas sa biir garabu sànn lañ lay jox ñu woowee ko déparasitant ñun yàlla baaxee nañu ñu yor garab boo xam ne nit ki da koy naan lépp lu ñoon ci biiram day génn hmm. bu doon poison bu doon liggéey bu doon lu salte bu doon butit yi ñëw bouché bu doon colopathie chronique ou fonctionnelle hmm. léppay génn d'accord te biir bu tilim mooy créer colopathie mooy créer hémorroïde mooy créer ndigg bu métti mooy créer bët yu flu mooy créer tànk yu tàng mooy créer faiblesse sexuelle mooy créer créer créer créer mm-hmm. donc mën na créer je dire cinquante pour cent des maladies d'accord donc ñun ñu mën ko faj te ñëlee mënuñ ko faj boo amee colopathie par exemple ñu ne la régime à vie alors que cabinet ñeddiri benn yoon ngay naan garab bi nga wér te quinze mille francs doo ngay fay d'accord bon beneen bi siti la siti c'est aussi à l'origine de presque cinquante pour cent d'autres maladies des autres maladies siti mm. mooy indi stérilité féminine ak euh, masculine siti mooy indi docteur li nga wax dafa am solo baal ma nga koy firi ci olof rek ngir xëy na Sénégal yi gën a mën a comprendre siti mooy tax maniw góor di yàqu siti mm. mooy tax euh, jigéen di ëmb muy tuur ok siti mooy tax ngay gaaw a daanu booy sëy ok siti mooy tax ngay am lu ñuy wax arthrose parce que siti mooy wowlu yukk yi. Hmm. siti tubaab xamul luy siti existé wul ci vocabulaire am. d'accord moo tax may naan yàlla may na leen technologie may leen possibilité ak ay lu ñuy formaté ay médicament ak ay molécules. Hmm. xañ leen ñaar mooy bu biir bi ak bu siti bi yàlla du may lépp. may ma ko man. Hmm. comme man yàlla tere ma euh, examen. mën examen mën a examiner nit mun a consulter nit du ma ko def xaw ma ko ma ko yàlla du may lépp dafa may ñële lii may man lii d'accord donc tôt ou tard nag nos mm. routes vont se croiser tôt ou tard l'Occident et moi on va collaborer mm. tôt ou tard mm. mais maintenant je sais que c'est à moi de prouver prouver bi nag je crois que fulla laa war a def gis nga ça fait six mois enregistré une émission man maa man maa newoon teg xam nga nag Sénégal bu ñu la tàmmee di gis ci émission bu ñu la gisatul peut-être dañuy naan a nga fay. Hmm. wala da am problème ak site web yi man je n'ai aucun problème avec aucun site web man maa ne trop de communication tue la communication. ok man maa ne nit ñi bi ma njëkk def ay ay sorti dama leen ne communication dama ko mën xam luy saturation xam luy fascination xam luy maturation. Hmm. ma dóor ñetti yëpp nag ñu daanu ma am ci nag ma dem ba am ci li ma soxla waaw ba léegi léegi nii macha allah bu dee clientèle am nañ ko hmm. ma génnee video ma ba ñu génnee vidéo c'est pareil pour moi d'accord euh, la recette ne change pas hmm. alors que avant su ma yéexoon génnee vidéo recette bi day changé mais maintenant <laughs> c'est plus le cas euh, léegi nag peut-être ci recul yi jël parce que entre temps dem naa fi Makka dem naa defi sama pèlerinage au mois de juillet mm. au mois de août dem naa defi sama umra mm. au mois de septembre def naa sama magal mm. au village d'accord donc euh, ça me permet parfois de réfléchir de cogiter de voir qu'est-ce que je peux apporter de plus dans mon boulot d'accord bien qu'au début j'étais pas 100% dedans maintenant que je vais être à 100% dedans, j'ai pris un autre élan. L'élan de reconquérir le monde, d'avoir plus de patients mhm. guéris. Mhm. léegi peut-être ñoom seen bouche à oreille rek dina dina doy. d'accord seen bouche à oreille dina doy donc mhm. je vais encore reprendre six mois de communication six mois de communication. d'accord euh, su ma ko jëlee encore toogaat six mois. très bien nii laay defee. d'accord très bien. léegi uh-huh. j'aurais encore euh, engendré de nouvelles connaissances ñooñu aussi dañu ma dimbali ci bouche à l'oreille bi parce que actuellement les blancs sont au courant boo ñëwee sama cabinet nga fay gis ay tubaab mm. ñoo faju ji ñoo faju si donc alhamdulilah mm-hmm. bon euh, tout récemment c'était le dernier jour que j'ai fait à Dakar c'était lundi parce que samedi dimanche lundi laay liggéey mm-hmm. benn tubaab laa mujjee recevoir bu doon faju hémorroïde hémorroïde am moom daf ko opéroon mais moom xam na hémorroïde baa ngi foofu effectivement hémorroïde boo ko opéré te hmm. euh, raxasuñu biir bi ba léegi wérut d'accord elle est venue je je dirais pas qu'elle est toubab à 100% parce hmm. que est mariée en sénégalais donc elle est toubab 50% sénégalais 50% d'accord donc c'est un peu ça léegi man euh, man maa war a gën a fulaal liggéey bi très comme man. Mhm. woote naa. Mhm. woote ba sonn. Mhm. j'espère que même au ministère de la santé on a une direction là-bas. je suis parti un jour là-bas avant may commencé di faj Dakar boobu j'étais à Ziguinchor je parle sous le contrôle de certains Won Ibrahima Won. qui était là-bas. au secrétariat ministère de la santé. au temps de euh, la femme là s'appelle comment encore euh, oh, Marie Coll je crois. Euh, mais dañ ma ne demal nga bokk ci association de tradipraticiens j'ai refusé. lu tax nga refusé. te ki fa nekkoon. Hmm. je connais là où il prend ses médicaments. je sais qu'il n'est pas bon médecin. <laughs> donc pourquoi bokk ci fen d'accord est-ce que dina évident bu fekkee ni euh, mën nañu wax ni quand même daf nga xaw a individuel un peu ci sa combat aussi. dina évident incha allah. Hmm. Galilée a dit que la terre tourne sur elle-même 24 heures on l'a accepté ah. très bien alors muy la am solo. Descartes a dit que je pense donc je suis il est le seul à le dire on a trouvé que c'est raisonnable. Mm. donc j'y vais doucement. d'accord très et bien et déjà man tout le monde sait qu'aujourd'hui il est le seul à qui qui traite la colopathie il est, il est le seul qui traite l'hépatite B aujourd'hui il y a 91 millions d'Africains qui me cherchent. d'accord. ci loolu parce que 91 millions d'Africains sont atteints du virus de l'hépatite B. d'accord xam naa ne perturbation de règles wala règles yu bloqué siti moo ko indi ma faj siti dogal dafa faj loolu. Hmm. c'est juste ça donc sama base bi mooy. siti ak raxas biir euh, yooyu tout ce que sa peut provoquer hmm. foofu lay fajee c'est que nit da ngay am ay branche mënoo jàngandoo lépp sa adduna hmm. moo tax ñii di nekk ay philosophe ñii di nekk ay mathématicien ñii di nekk ay chimiste ñii di nekk ay biologiste ñii di nekk ay historien noonu la rek d'accord comprendre nga hmm. léegi man ma médecine est basée plus faale wala tubaab di faj ak lu fajul man pour man. Mm. dañ may jàppale sax parce que ñoom xamuñ sax luy indi hépatite B. et je vais leur dire une chose. Mm. aspirine ak paracétamol mun na indi mun na indi hépatite B. mën na ko indi. Mm-hmm. et je l'ai dit dans d'autres vidéos et ils ne peuvent pas me mm. booy naan garab yooyu fekk lekkoo wala nekk ko en cours de repas. c'est une bombe hépatique. ñoom xam nañu foi du nangu loolu. Hmm. il continue à la donner aux gens. Hmm? Hmm. ñoom les médicaments que vous trouvez dans nos pharmacies est-ce que yooyu ngay fekk Arabie Saoudite <laughs> bokkul de dem naa Arabie Saoudite di laaj CAC euh, 1000. dañ ma doon reetaan ma pare laaj dina ma jël ñu reema ñoom loolu du garab ñu yëkkati li may jox. ñu jox ma ko j'ai vu vraiment de l'efficacité ok j'avais juste de l'anorexie bëgg a lekk hmm. mënuma lekk ñu jox ma ay garab yoo xamante ne ça me faisait pas dormir et je mangeais très bien et ça m'enlevait mon stress d'accord mmh. comprendre hmm. donc c'est totalement différent d'accord hmm. euh, am naa fi benn kyste à côté de l'anus xaw ma fu ma koy fajee Sénégal mais foofu la wéree bi ma leen ko waxee dañ ma jox solution. foofu ci Arabie Saoudite. waaw parce man même même bi may armal dama sol culotte parce que ma mun kist je ne sais pas que mun na mun na mun na exploser n'importe quand mu génne puis mu hmm. taal mu tache loo sama kii. Hmm. je mettais des couches ta couche quand même hmm. ah. bu je mettais mon mon boxeur jël benn mouchoir taf ko ci kist bi. pour Boubani. donc j'étais obligé de mettre une culotte. alors que booy booy armal waroo sol culotte. absolument je l'ai fait. Mm -hmm. je n'ose pas parler de ça parce que c'est une maladie comme les autres. Mm foofu laa xam ne aussi bu nit ñëwee ci man de ma faj ma hémorroïde su ma la fajee wéeroo leer na ma ndekete am amoo hémorroïde kist nga amoon à côté de l'anus wala nga am fissure anale man je ne traite pas je traite les hémorroïdes. d'accord. te li ma dal bëri nañu mu dal ndekete yàlla dafa ma ko nattoo pour ma mën a wax leen solution bi man loolu bi ma bi ma bi ma dalee ma faj ko bi ma demee umra j'en ai payé mu ngi nii sama table des des des des paquets pour ku ku mu dal ma may la. d'accord très bien. donc. Mm -hmm. parfois da ngay toog nga xam ne mission ngay dox. d'accord parfois da ngay toog nga xam ne lii mënoon na ñàkk. ci sa personnalité. Mm mais yàlla moo ko def ci yow nga jox ko gëddam. d'accord je ne recevais pas les gens comme je les aujourd'hui dama dem Arabie Saoudite la veille de Arafat dama feebar ñu yóbbu ma ci benn eh, boxe médicale on m'a bien reçu on m'a traité comme un prince duñ doon daaw ñoon nangu sax ma dox ci pousse-pousse lañ ma teg pour ma bañ def effort injecté ma bi may dem ñu jox ma benn package boo xam ne dafa am des biscuits du jus xam nga du ma ne mais ñii ñoo ma leer na man ëpp judd te ñoo ma gën. ok ñu suufeel seen bopp ba recevoir ba mettre ma à l'aise comme ça man su ma ñibbee désormais ah je vais créer des paquets pour jox samay malade ok rang bi dafa métti ma jox leen lu ñu ndekki je vais apprendre à bien respecter mes patients. c'est un donc loolu daawoo ko def mais léegi euh, fex boole nga ko ci programme li nga xam ne mooy cabinet médical de Dri mooy ni ku fa bu la fa la traité bu laajoo ñu jox la ndekkee te ñu jox la ko d'accord di laaj monsieur Diallo donte ni wax dëgg yàlla def nga ay résultats yu am euh, gis ni dafa mel dafa am wala benn combat boo xam ne à chaque fois da nga koy affiché sa ak nga xam ne mooy les médecins les médecins modernes je veux dire wala les yi nga xam ne aussi ñoo fi nekk ndax loolu vraiment du wane beneen yéex laay ci li nga xam ne moom nga bëgg imposer ci monde bi. bu naree yéex day continuer yéex parce que ñoom ñoo def tort bi d'abord ils nous ont diabolisé. Hmm. ñëw ba suñu réew yi di fi imposer est-ce que xam ngeen loi am na depuis 1993 contre les publicités médicinales. Hmm. traditionnel alors que ñoom France 24 boo ko taalee léegi nga gis ñuy publicité ay ay et ça paye des millions 10 secondes de publicité sur, sur, sur France 24. Hmm? Mmh. Des médicaments même que j'ai su qu'en euh, Arabie Saoudite, on ne les utilise pas. D'accord. léegi ñoom ñu jaboliser ñu ba ñëw ba suñu réew imposé ñu def ay ay ay loi hmm. anti publicité c'est pas normal. d'accord alors. ils nous diabolisent te ñoom hmm. xam nañu ne ñoo leen dàq faj te ñoom bu ñu bëggee faju aussi ci ñun la ñuy jaar parce que si je dis ça c'est pas que dañuy ñëw ci ñun mais ci herbe yi la ñuy dem. d'accord dañuy jël dañuy jël garab. Mhm. bañ nañ ko ba ñu koy woowee sax en anglais drugstore. d'accord drogue la. Mhm. Mhm. léegi ñi ñuy diaboliser man je congaan damay gëm li nga gëm ma gëm li ma gëm waaye ma gëm li ma gëm gëmma li nga gëm. du ñu ànd. c'est clair. et il est temps mënuma yor lu mel ni. ma bañ a fëgg ci taal bi que le monde doit venir se soigner. d'accord. qu'il me tue. très bien hmm. mais man loolu réew mi. d'accord alors euh, monsieur Diallo balaa may jeexal aussi ki nga xamee ne wax dëgg yàlla ku yitti wala jëfandikoo ak ñi nga xamee ne mooy cabinet médical Ndédri yan condition lay amee accès ngir ñëw man a jëflante. très facile. Hmm. déjà mu ngi affiché noonu numéro yi. Hmm. numéro yi am nañu WhatsApp. ça ne veut pas dire da ngeen di woote WhatsApp. <laughs> woote WhatsApp moom duñ ko jël kenn donc ñi nekk bitim réew nag. non WhatsApp daa daa yomb quoi. ok nous on n'a pas temps des téléphones. tu laisses message bu gàtt nga wax ñu li nga bëgg bu ñu amee jot tontu la cest à bu ñu amee jot mooy bu ñuy ñëwee ci sa message parce que y a quatre-vingt mille messages. d'accord par jour. Mm. et personne nag ne de taille di message dinaan nañ ko répondre automatiquement. d'accord kenn amul valeur boobu bu dee loolu ngay jaay moom bu bu ñu sax contacter efface notre numéro man je rends service je ne dérange personne que personne ne me dérange. damay faj lu kenn dul faj donc respect. d'accord te fay fayu fayekuwuma dara lu ko fi jar. d'accord léegi nag ci as WhatsApp tu laisses un message 30 secondes bëgguma sax ku ma nuyu nga wax li nga bëgg secrétaire dina la tontu ci gàttal il faut nga gàttal. ni nga gisee vues yi 14000 wala 24000 wala 80000 noonu la ngay message noonu la nit ñi message yi. très bien mais vivre dans les messages bi jigéen la dafa am doom. Mhm. dafa war a toppatoo jëkkëram Vous voulez qu'elle veille sur vous 24 heures sur 24 xanaa du nit. d'accord très bien deux mais elles n'arrivent donc il faut ñoom ñu comprendre loolu. d'accord gàttal message ñu tontu leen. Sénégal ngay gis nit ki ñëw nga expliquer ko mode d'emploi yooyu nga xëy depuis 4 heures du matin nga ran ba 7 heures ñuy recevoir la jox la garab ñu wax la mode d'emploi au lieu nga parcuriser ko wala nga. nga enregistré ko sa téléphone léegi am na sax ñuy enregistré seen téléphone ñuy dem ba seen kër wootaat la wootaat la encore des laajal mode d'emploi c'est quoi ça. d'accord monsieur Diallo si tiitanam ñu ne da nga da nga gaaw mer mais parce que tiitanam contre un animal. d'accord nit nit nit li tax ñuy wax nit. mooy ah, xalaat ak xel très bien monsieur Diallo. léegi nag. Hmm. à part deux numéros y a l'adresse. l'adresse par exemple moo wax la ko fii. Hmm. Petit entre Petit am na ay clando nga ne ko kër ab laa Diallo ci mango yi mu indi la ci mango yi ngay wax nag parce que am na beneen Diallo Petit Mbao kooku bokkuñu sax médecine nuruwuñu sax te kooku sax day laaj ay consultation 10 mil man duma fayee ko léegi nag tous les dimanche lundi la ñuy liggéey léegi wax naa ko nii est-ce que loolu jar na téléphone. heure yi heure yi aussi du ñàkk am nañu ko bëgg xam aussi. 8 heures 14 heures. d'accord ñëwee 14 heures du ko recevoir. parce que ñi fa nekk 11h ba midi midi stoppé nañu liste bi. Hmm. ñi fa nekk laay laay recevoir ba 14h su ma paree ma ñibbi tant que pare nag du ma wàcc. mun naa ne ba 14h ça veut dire am na ku mën a ñëw 13 mais parfois 18h laa génn ci biir bi parce que ñi duggoon dañoo bëri te duma bàyyi nag wax dëgg yàlla nit ñi ran ba yenn heures yi ma ñibbi fekk fekk fekk paruma ak ñoom. Alors, je respecte très bien les gens. Très bien. Mais le problème aussi, il y a des ne méritent pas le respect. D'accord. Parce que xamuñ sax seen bopp. téléphone daal yomb na même congaan am na téléphone léegi ah xalifa am na téléphone. Hmm. téléphone yomb na ginaar yi am nañ parce que su ma waxee ginaar moom xalifa laa wax. am nañ téléphone. très bien daal il les gens. non hmm. Hmm. téléphone du noonu. d'accord ya y a des aussi pour les téléphones. d'accord yan heure la. Ah. yi nga xamee ni yow xëy na di nga disponible pour ñu la soxla mais ki soxla xëy na yëg nii soxla na la 23h aussi jàpp nga ne amul drapeau wala monsieur Diallo xam ne c'est un con. d'accord ko sax faale. d'accord heure boobu 23h. sama jabar laay faale. képp ko di sentir chaleur laay faale. waaye du moom très bien. dëggam dégg naa la docteur Abdoulaye Diallo 23h il n'a pas de respect. kooku du la sax faale boo mujj bu ma décoré sax saaga la. d'accord. parce que du ma kooku. très bien et man chez moi y' a pas d' urgence <laughs> foofu du hôpital amul urgence est ce que dégg nga ma. d' accord monsieur Diallo li may faj amul urgence de. très bien docteur Abdoulaye Diallo Senbuzz Sénégal Buzz di la jaajëfal bu baax a baax ci leeral yi gannaaw bi nga xamee ni vraiment xatoon nga pour nga may ñëw ko merci aussi encore une fois ci disponibilité. mais temps yii nouveau <laughs> marié nga macha allah sa nga lay toppatoo am nga biceps ah <laughs> nga léegi parce que da ngaa ñaawoon nag leer nga. bàyyi nga yére yu màgget yi yaa ngi sol pantalon t-shirt yu rafet bu ko dàgg nag de vraiment madame Thiongaan merci madame Thiongaan daal am nga maanaa madame Thiongaan jërëjëf gën ko toppatoo lii de la jabar di njëriñ waaye nga takk jabar rek di gën a màgget forum bu ñu yërëm la yàlla nañ yàlla musal ci boobu jabar jaajëfal leen Cheikh Alioune Mbengue wéetaliku gi di ko jaajëfal jërë ngeen jëf